wa fikrati nawwir wa qalbi arshida mbokki jullit yi mbokki taalibe yi ñoo ngi leen di nuyu te di leen ziyaara di yëkkati sunu kàddu ci turu mbooloo mi nga xam ni mooy almadrasa alxadimiya di mbooloo mi nga xam ni ñoo ànd ak sëñ Moustapha Diop kokki liggéey bi nga xam ni moom lañu doon amal mbooloo mi nag euh, ci niñ ko mën a xamle mbooloo la moo xam ni dañoo jóg ngir ànd ak sëñ Moustapha liggéey bu sell bi nga xam ni moom lay liggéeyal sëñ Touba ñu mën koo ànd ngir bu ëllëgee ñu bokk am ngërëmal sëñ Touba mbooloo mi ay soppe ak i ñi nga xam ni ay bokk lan ak jaga jegeñaale ak i xarit ñoom ñooy ñi nga xam ne ñoo nekk ci biir mbooloo mi ndax daanaka kenn ku nekk yëgoowutoog sa morom ci Moustapha ngir pas-pas bi ak xam-xam bi ak dogu gi ak i takku gi loolu tax na kenn ku nekk façon na ak moom liggéey bi te yëgoowoog sa morom bi ñu demee ba gis ni waras na koo jëmmal waras na koo taxawal ci la ñu jëmmal mbooloo mi nga xam ne euh, lenn la ci kàddu yi nga xam ne doon na ko wax léegi muy mbooloo moo xam ni euh, dañuy juddu nekk mbooloom xam-xam mbooloom pas-pas ànd ak moom liggéey bi jiital ko ci sunu kanam ndax mooy li nga xam ne euh, mooy sunu mu nasiqul am daanaka mooy sunu coordinateur général mooy sunu jëwri nit ci liggéey bi Euh, mbooloo la moo xam ne lii yitteem ni ma ko waxee léegi mooy xam-xam bi euh, ndonol mag ñi ci tasawuf bu mu réer rawatina ndonol Serigne Touba ci ay wax ci ay bind ci ay jëf loolu ana nan lañ koy jëmmale ndax démbkat ba yëf yi jaxasoo moo juróon li nga xam ne moom mooy école yi xew ci tasawuf yëpp al madrasa al baghdadiya al madrasa al basriya yenen madaris yi judd yëpp liko juddulo moy, jafé jafe-jafe yi feñ ndax jafe-jafe kat nam deug la euh, lu metti la waye nak dana juddulo xam-xam dana juddulo am-am dana judulu man man, kon lu mel noni nii al madrasa al ya judd ngir samat li nga xamne moy trace bi ta moy ndono li euh, mbolo mi nak Euh, bëgg naa jëmale ab yëngoom ci mool ay téere mool ay téere yoo xam ne mooy téereb sëriñ bi téere yi sëriñ bi ginnaaw bañ ko gëstoo ba leerlu ko ba wéral ko ci askanale giñ ko askanale ci moom soog ko génne ba tasaare ko ci àdduna bi yëpp mbokk yi xam ngeen ni bibliothèque yi gën a mag ci àdduna bi mbindu Sëñ Tuubaa teewagu fa loolu mbooloo mi moom teg na ci tànkam ngir euh, dox ci ngir euh, mën a euh, teggi défi boobu la ca toppitam itam mooy bëgg nañoo amal gëstu yu mag a mag yu am solo bokk na ci rek benn bi nga xam ni sëñ Moustapha inauguré na ko te muy lu ubbeeku mbooloo mi fas yéene liggéey ci lu nu mel ak yeneen gëstu ci xam-xam ci fànn yu yaatoo yaatu bokk na ci liggéey bi tam bëgg nañoo taxawal li nga xamante ni ay organe de presse la euh, yëngu bu baax a baax ci ni ko mbokk yi defee am benn présence ndax ku nekk xam na ni li ñuy wax média am na doole amaay doole goo xam ne daanaka euh, ni ko àdduna bi joxe gëdd ak ni mu mën a influencer ak liggéey bi ñu ci mën a liggéey euh, loolu te des na bu baax a baax nag ci murit gi naam dëgg la ñi fi nekk ñi ngi liggéey waaye euh, wax dëgg suñ ko sañee wax xam ni dëgg-dëgg message bi nag des na te li ko desal mooy lu ci bari dafay nekk yoo xam ni dafay war a yoon wi waaw politigu yoon wi ci ñenn ñi ci ñàkk xam lañ koy def ñenn ñi ay intérêt mooy lalu yu ci bari yoo xam ni jafe-jafe lay jur kon loolu euh, gàllankoor la ci yëf yi loolu